633 77 56 wala 77 712 44 71 ci ñu bëgg bind seeni doom wala ñu bëggi leeral ci daara ji tey ñu fas leen yéene andil ma bu amati solo tukkee ci ku ama am solo muy kenn ci eh, mag ñi njëkk ànd ak Cheikhul Xadim eh, doonoon borom pas-pas loolit doonoon mbirub diine ku sel doonoon ab murit sadiq bokk ci ñi njëkk jaayante ak sëriñ bi eh, te bokk ci di njëkk am ngërëmul sëriñ Tuubaa te ngërëmul sëriñ Tuubaa mooy ngërëmul yàlla te wa ridwaanu minallaahi akbar mooy sëriñ Masamba Diop Sam sëriñ Masamba Diop Sam ku teel a ànd ak sëriñ bi la mm, xam naa dañuy barkeelu rek ci eh, lenn ci ay mbiram beneen yoon ñu gën koo yaatal incha allah mhm. moom ma nga cosaanoo ci kajoor way juram wu góor eh, tuddoon sëriñ maysa senaba jóob way juram wu jigéen tuddoon soxna maam penda mbay sëriñ ma jóob sa am ku suñu borom booleeg sëriñ tubaa la te boole seen mbir ndax moom mi ngi ganee àdduna 1852 sëriñ bi mil gane àdduna 1853 ci Zahir nga xam ne moom moo fi jiitoo sëriñ bi menn at ci Zahir waaye it mi ngi génn àdduna it 1926 sëriñ bi génn àdduna 1927 kon ñuy suñ borom teel a boole la waaye ñu dëppale tamit seeni mbir la ngir tënk rek mi ngi gisanteeg sëriñ bi ci daara yi sëriñ Sam Sarr nekkoon ci wetu Patar waaye fekk itam sëriñ Mamoor Anta Sali doonoon wala réew sëriñ Sam Sarr dafa daan ñëw di ko ganesi nag am bis mu ganesi ko sëriñ bi santu santu sëriñ Mor Anta Sali sëriñ Masamba Diop Samit daan dem foofe di fa tëralu ay téere wax nañ ne ba fa àggee dafa taseeg sëriñ Mor ñëwoon fa ak ngan ak sëriñ bi bi sëriñ Mor Anta Sali sëriñ Sam saar ci biir di waxtaan nag wax nañ ne foofee la nuyoo ak sëriñ Tuubaa ca ëtt ba fa lañ njëkk nuyoo sëriñ bi laaj ko foo toll mu daal di koy ubbil téere téere ba fa mu toll wax nañ ne risaala la sëriñ bi daal ko fay tëralal ab bind bind ba mu ko fa tëralal nag leer gam leer ci moom ak am lu ko dugg leeru suñ borom dugg ko tax na ba jataay ba tase kenn mënatu koo jàngal bind mu dégg loola xañ ko sago ba mujj mu mu laajte sëriñ bañ ne ko doomi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali la mag dëkk bu ñuy wax Pataar ca la fa demee nag ne ko yow kat ma tax a jóg sëriñ bi ne ko ah surga nu muy dalale moroomum surgaam mu ne ko waaw waaye surga bii de dalal ko du jafe ndax gànnaayu na te mën naa yalwaan gànnaayu na mooy mën naa liggéey te mën naa yalwaan wax nañ ne euh, sëriñ bi daal di ànd ak moom nekk kon nañ dem ci borom daara ji dem ci Mamour Anta Sali wax ko ko gan gi ak ni mu dikkee mu nangul ko mu nekk fa. wax nañ ne guddi gam fa njëkk def rek ba ñuy reer jëwrin ja nga xam ne moo yor liggéey ba dafa wax ci kaw ne eh yéen ñooñu képp ku mën a tibb seex bu subaa na nga dal aw dooñ. sëriñ bi daal koy wax sëñ Moussa mu ne ko dégg nga li mu wax mu ne ko waaw waaye dafa mel ni gan gi lay waxal ndax dëkk yi ñoom. Euh, miin nañoo dégg loolu kon dafa mel ne gan gi lay waxal waaye gan gi moom gànnaayu na loolu mooy mën naa liggéey wax nañ ne bañ xëyee dafa ñaan sëriñ bi ne ko dama bëgg nga bàyyi ma ma bàyyaale la saw dooñ dama laa bëgg a wàcce ci tool yi nga féetee ma ci téere bi kon moo njëkk a wàccee sëriñ bi ci loolu ci la jóge nag saa bu ñu daggalatee sëriñ bi lu muy liggéey moom mu liggéeyal ko wax nañ ne añ nañ bàyyi ko reer nañ bàyyi ko sëriñ bi sax mu ne ko nag waaye muñal rek bu ñu àggee fa nga xam ne nii ab añ mënu faa ñàkk te am ko fa dana jafe sama loxo su tuut si moo fay sedd la te te te te danaa sedd muy koo xam ne ni ku amoon pas-pas la te gëmoon sëriñ tubaa lool Serigne Touba doy loo woon ko lool wax na ne Serigne bi kër gum daan sañ ci ñaare dana ko woolu mu ñëw bu ñaanee ba noppi déglu ko mu ñaan bi Serigne bi demee ci ci géej gi itam moom bokkutoon ci ñi doon sikki sàkka ak dellu seem bi tubaab yi ne sëñ bi génn na àdduna it moom nattabliwu ko xam na ne loolu du dëgg tax na dafa amoon ay kaaw ci këram di dajale ay addiya di ko waajal bi sëriñ bi ñibbisee ci géej gi mu jox ko ko bi sëriñ bi ñibbisee itam ba dem gànnaar mu jox ko ki toppoon ci taawam di sëñ Masamba Diop sëñ sëñ Mut Diop Masamba ndax sëñ Mor Astu Diop moo di taaw waaye dafa teel a làqu waaye sëñ Mut Diop Masamba mu jox ko sëriñ bi mu nekk foofee ci ba mujj sëriñ bi ne ma sàmbare daf may xamal ne lantinoor la du tee diw waaye ma ne danaa ko xamal ne ko euh, bu ñu àggee ba fa nga xam ne nii mënee su ko fa ñàkk te am ko fa dana jafe danaa ko ko jox moo waa këram ñu jariñoo ko léppam tamit sëñ la woon ni may faral di wax rek mag ñi waxtaanee leen liñ ci jublu mooy yokk sunu pas-pas ak yokk sunu yitte ci sëriñ Tuubaa xam naa gannaaw Euh, gëstu bi matagut lii lañ ci am jëlee ko ci kenn ci ay sëtam ne nañ ko yaatal beneen yoon incha allahu dana gën a yaatu ñoo ngi soññu mbokki jullit yeek mbokki taalibe yëpp ci euh, liggéey waa daara Hikmatul mi ak siyaar bi nga xam ñoo ngi koy waajal Cheikh Mor Muntaxa euh, képp koo xam ne ni bëgg nga cee bokk na nga bindu ci list yi day ñaari list nag am na liste boo xam ne ni moom ku bëgg dem rek mën nga cee bindu ku bëgg a ànd ci mbooloo mi mën nga boobu tekkiwul ne da war a joxe wala waroo joxe beneen list bi nga xam ne moom ngeen di gis ñu affiché nag muy diw joxe na nangam loolu mooy ñi nga xam ne ni dañuy joxe addiya ndax yaakaar naa ku gis Sëriñ Tuubaa da nga ko jox addiya addiya lañ bëgg dajale mu doon benn ñu joxandoo ko ko waaye tekkiwut na nag ku joxewul addiya kat bokk ci siyaar bi déedéet waaye nag buñ sañoon ku ci bokk nar a jox addiya sëriñ bi ñu dajale ko def ko benn loolu rek lañ ci jublu waaye nag ku ci nar a bokk ku joxe sa bopp itam day baax ndax balañ caa àgg ñu xam ñii dem